mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi euh, tey nag ni ngeen ko déggee ci annonce bi dañuy waxtaanee euh, benn xew-xew itam boo xam ni daanaka léegi ñu toll ci fàttaliku ko muy 23 jàpp 24 juin bis boobu ci atum 2016 ci le président Macky Sall gracié woon kii di Karim Wade nekkoon ministre. di doomi itam eh, njiitu réew ma woon président Abdoulaye Wade Karim wadd nag eh, mbiram ak yoon eh, muy lii di traque des biens malaki dal di woon ay marqué lool Sénégal tax ñu bëgg a dellu siwaat ci moomu mbir ni ko PDS dundee woon rawatina ak jegeñaale Karim wadd ak xëy na moom sax ni mu ko dundee du moo ñu koy wax gaa waaye ku ko jege lool mënees nañu ci xëy na yeggee tuuti muy Bachir Diawara nekkoon chef de cabinet bu monsieur le ministre Karim Wade Bachir maa ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la euh, ci démb ak tey ngir waxtaanee lii ma fi junj léegi. maa ngi lay nuyu bu baax euh, ma sœur Fatou Thiam di la gërëm bu baax ci invitation bi. Mm. di nuyu auditeurs réew Rewmi FM yëpp. bàyyiwuma kenn di leen ñaanal jàmm bu baax a baax am naa kontaante bu baax euh, pour euh, janoog ci li nga xam ne dina amal njëriñ askan bi. Mm-hmm. jërëjëf Bachir euh, mbégte mi ci ñun la ëpp alors ni ma ko waxee Bachir guddik 24 juin mënees naa wax 23 au 24 2016 ci le président Macky Sall daal di jël décret numéro 2016 880 gracier Karim Wade ginnaaw bi mu defee fanweer ak juróom-ñetti weer ci kaso bi li ko waraloon di li ñu naan traque des bien mal acquis maanaam euh, nguur gi moo doon topp alal gi nga xam ni am nañ ñu ñu jàpp ne am nañ ko ci réew mi euh, ci anam gu lewul Karim nag nga jege woon ko lool ndax yaa nekkoon chef de cabinet euh, ñu doon la itam ci wetam guddeeg bëccëg mm-hmm. ngir door Bachir boo ñu mënee présenter tuuti Karim Wade ñu xam nit ki ak jaar-jaaram bala ñuy ñëw ci diggam ak yoon ak jafe-jafe yi mu ci amoon. Euh, Karim Wade euh, citoyen sénégalais la euh, patriote bu bu mag la man xam naa ci dara parce que balaa ngay joxe nit ne patriote la maanaam ku bëgg réewam la il faut nga mettre ko à l'épreuve man am na ci yu bari yoo xam ne fekke naa ko muy défendre position wu Sénégal maa ngi joxe rek benn exemple fële bi ñuy réviser la convention de la l'ASECNA au Gabon je hmm. pense c'était en Karim Wade liggéeyal na fa Sénégal liggéeyal bu rëy rëy rëy rëy da nga doon gis ci xar kanamam euh, lenn rek moom mooy fexe daal ba intérêt Sénégal ñoŋ donc loolu sax tax na moom ci ay pexem euh, conférence boo xam ne dafa waroon durer deux jours ngir xeexal intérêt wu Sénégal defe naa dañ ko mujj prolongé que ba ay quatre jours loolu yëpp intérêt Sénégal moom moo taxoon euh, kooku benn fànn rek la waxuma nag yeneen yi nga xam ne si au niveau international nga xam ne fu mu munti dem dafa musa yëkkati drapeau Sénégal ci kanam euh, ci wàllu coopération internationale gis na ni nga xam ne noonu la gën a feeñalee signature Sénégal au niveau international avec beaucoup de prouesses donc bu fekkente ni Karim Wade la ñuy wax ci côté patriotisme euh, man mun naa ne mun nañu jàpp Karim Wade nit ku ku gëm réewam la nit ku bëgg réewam la te loolu dafa bokk ci ci jaamu yàlla beneen bi aussi euh, xam naa ni ku bëgg liggéey la ku bëgg liggéey la su ngeen gisee lu bëree bari sax euh, dañuy wax ni moom du wax lu bëri du communiquer lu bari waaye moom dafa mës a choisir maanaam ay jëfam di wax ay ci place waxam dafa naa ni loolu moom moo tax ñu bëri ñu naan ko na l'homme du concret kooku dañ ko koy dàkkantal rek waaye nit la koo xam ne bari na lu muy jëf néew na lu muy wax donc loolu yaakaaral ni am na amal na solo askan bi parce que li ñuy wax spéculation de parole aussi bu amee ay at yoo xam ne ay jëf yoo xam ne dana mandargal nit ñi li nga xam ne noonu la ñuy doxal loolu dina nekk lu lu gën a gën gën mm. donc taalibe murit la nit ku oyof la contrairement ak ñenn ñi ñi nga xam ne ñoom lañ koy jàppee nit ku wàcce boppam la man xam naa ko bu baax a baax a baax nit ku mën a dimbali doomu aadama la loolu mën naa ko seede te am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi may déglu ci rajo bi xam nañ ko daraan toog ba mu yàgg sax mu dugg ci hôpital wala mu dem fenn def te yàlla tax ci sutura te kenn du xam du ko politiquer du ko defee euh, lenn lu dul euh, def digganteem ak boromam loolu moom euh, ak sama traayelu bamel mun naa ko seede fii ci seen rajo bi donc nit ku baax la koo xam ne daal wax dëgg yàlla ñun daal loolu la nga xamoon wax dëgg yàlla. Hmm. kañ nga xam Karim Wade Bachir Diawara ak seen diggante xëy na lana ko nas. waa yàgg na nag Karim bi ñuy xamante xale la xale la donte na nag bi may nekk xale amuñu woon relation de travail relation wu parti rek moom moo amoon. mooy jamono yi nga xam ne dañ daan dem point E ñun ñëpp di seeti suñu suñu secteur général Me Abdoulaye Wade kon ci ndaw yi daan nañ ko gisee taxawuloon ñu miinante yenn miinante yu sori yooyu waaye mu nekkoon nit bu am courtoisie nit bu wàcce boppam Euh, ña nga xam ne ñoo doon dem sax ay jamono kër Abdoulaye Wade doon nañ gis euh, tabe gi Karim Wade tabe woon maanaam ci euh, mën a defal teraanga doomu aadama buñ fa demaan maanaam tey ñi nga xam ne dañ doon soxla dara ci biir kër gi Karim moom moo doon volontaire wu di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo fa doon ñëw donc dafa nekkoon nit bu bëgg nit loolu moom xamnaa ko bu baax a baax parce que boobu on encore trop jeune xëy na amuñu woon benn. rang social bu mag a mag a mag waaye bu ñu ñëwee da ngay gis respect ak considération bi nga xam ne daan na ko jox na daan ñëw nekk ay ndaw nekk ay ancien euh, foofu ci point e, jamono boobu am laa dérégul woon pouvoir je me rappelle bien de cette époque là alors ginnaaw gi euh, fan ngeen jaar ba nga nekk. chef de cabinet waaw donc c'est c'est c'est en 2004 laa dugg cellule communication au présidence de la République di liggéey ñoo ay commencé nag am ay relation de travail ba keroog ma nekk euh, chef de cabinet en 2009 mooy at bi nga xam ne ci lañ ko nommé ministre donc ma nekk ci wetam di liggéey. Mhm. alors euh, Bachir présenté nga ñu Karim Wade waaye bëggoon nañu xam itam leneen ci moom mooy lan ko dëgg-dëgg tax dugg ci politique ndax euh, ma nga woon bitim réew gannaaw ba mu jàngee ba xëy na am ci jaasaam euh, tàmbalee liggéey waaye euh, am na xëy na ñàkkul lu sabab mu dellu si ci Sénégal ba nekk ci wetu pàppam di liggéey xëy na ba li ci topp yëpp topp ci waaw seulement balaa may dugg ci loolu nañu def ñaari différence moom mooy engagement politique Karim Wade nekk na loo xam ne euh, dafa weesu juddu ñu bari tey jii di wax hmm? donc moom ak parti démocratique sénégalais hmm, ñoo ànd. foofu dinañ fa ñëw mhm. waaw. Karim ci keppaaru parti démocratique dinaa ñëw ci wàllu liggéey bi ci keppaaru parti démocratique sénégalais la la la nekk. même bu fekkee sax am na ay jamono yoo xam ne dafa nekk bitim réew saa yu ñëwaan Sénégal da ngay gis ni dara nekk au service du parti loolu defe naa ni Euh, même ñi nga xam ne tey jii contrôle nañ ko trop tey tey tey tey tey waxal nañ ko loolu je prends de cas de de de Farba Senghor ah bugguma koon citer mais comme <laughs> nekk na tey ji un adversaire te am na ay jamono aussi tamit loolu dëggal na ko je pense qu'il est bon de de rappeler hmm. beneen bi euh, ci wàllu liggéey euh, ñun ñëpp jàpp nañ ni Karim Wade bi muy ñëwaat encore Sénégal maanaam bàyyi léppam ñëw liggéey jox boppam Sénégal liggéey boobu mi ngi tombé ak président Abdoulaye Wade bi muy def appel diaspora bi maanaam képp koo xam ne doomu sénégalais na nekk bitim réew am ay compétence am xarañteef ci li nga xam ne moom la réew mi soxla Abdoulaye Wade daf la tàllal loxo ci ngeen gisee ñoom euh, Matar Diop bi nekkoon banque mondiale daal di ñëw si ñoom Ablaye Diop hmm, ngeen gis ñoom Cheikh Tidiane Gadio gis ñoom Karim Wade hmm, donc ñoom Cheikh Thierno Ousmane képp koo xam ne daal nekkoon nga bitim réew nekk doomu Sénégal am compétence Abdoulaye Wade da daan taamu ñooñu ñëw ci seen réew servir seen réew dafa naa ne ci vague boobu euh, mën nañ ci citer euh, Karim Wade si côté relation wu travail nga xam ne di wu ñëwee ci lañ ko na may conseiller euh, à la présidence de la République mooy poste bi mu njëkk am ci wàllu état alors kon looloo ko indi Sénégal bi mu nekkee ci nguur gi jot na occupé ay poste yu bari euh, ministère euh, nekkoon fi lu jiitu loolu itam euh, ku yore wàllu ANOCI yi euh, agence nationale de l'organisation de la conférence islamique mën nañoo ne jafe-jafeem yi euh, foofu la jugee xëy na euh, très rapidement Bachir nga ñëwal ñu ci fonction yooyu Karim jot occupé ak xëy na ni mu diriger département yooyu nga xam ni papam dénkoon na ko ko waa alhamdulilah Fatou caam Ngom ANOCI euh, Karim Wade ma nekkoon président de conseil de surveillance bi waaye yàlla def na euh, mu liggéey ko liggéey bu mucc ayib defe naa ni kenn musul dégg euh, naka su dul noonu ci wàllu ANOCI en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey ci ANOCI yëpp bokkoon ci ci ay société civile mu ñoom Alioune Tine ak yeneen journalistes yi nga xam ne c'était des indépendants ak ñenn ñi nga xam dañu bokkoon ci société civile bokk ci conseil de surveillance de l'ANOCI ñoom ñëpp. na ñu ne ay la yéwén Karim Wade na mu doxalee ANOCI nekk na loo xam ne lu mucc ayib la ci wàllu set ak sellal ah, ak jubal ak euh, ak ak leeral euh, mu naan maanaam cutis de transparence donc loolu lu jara a leeral la parce que Karim Wade kenn musu Euh, indi lenn loo xam ne mun nañ ko laam-laamee ci wàllu ANOCI en tout cas amul benn corps de contrôle lu état wala lépp loo xam ne par exemple dafay gàkkal liggéeyam ci wàllu bonne gouvernance boo xam ne dafa yëkkati kàddoom euh, ci wàllu ANOCI kooku précision bu may bu may def la hmm. euh, xëy na li jot a ñëw kay dinañ ci ñëw tout à l'heure moom mooy ay complot yoo xam ne jot naa am après mu jëm ci wàllu traque des biens mal acquis te loolu boo bëggee ñu xaay wala wala ma bàyyi ba ci kanam. mais waaw <laughs> mais ci ANOCI bi ba tey. Euh, yaa ngi wax ne bon quitus de transparence euh, d' accord mm. euh, xëy na jot na ko mais sur le mm. terrain bon wax nañu ne liggéey yi noppiwul woon yu bari itam desoon naa mat tunnel bi nga xam ne daanaka ci la ñu ko defaree sax bon. taxu ko woon mel ni ñu bëggoon euh, ndax euh, neenu bu tawee dana senn bu tawee dana taa ak yeneen i jafe-jafe yu bari donc euh, est-ce que foofu mun nañu wax ni Karim am na fa réussite aussi. pour man am na fa réussite parce que déjà challenge moom challenge bi maanaam défi bi moo doon lan mooy fexe ba liggéey liggéey yi nga xam ne donte na lu jafe woon la parce que tey ko xool xar kanamu Sénégal ci wàllu infrastructure en tout cas avant ANOCI nga comparé ko après ANOCI da nga mën a teg sa bët ci lépp loo xam ne euh, Karim Wade ak euh, waa ANOCI def na ko ci wàllu liggéey bu fekkente ne benn exemple laa jël rek muy pont Soumbédioune boobu nga xam ne nee nga amoon ay gàllankoor c'est vrai amoon na ay gàllankoor amoon na ay contraintes financières amoon na ay contraintes techniques am na amoon na ay contraintes yoo xam ne c'est des contraintes sociales ndax gis ngeen ni bañ fa bëggee def euh, benn tali boo xam ne dafa jaaroon ci wetu cimetière bi gisoon ngeen coow li lu ci nekk waaye malgré tout gars yi dañu mujj réajusté wu. jar na sax ñu yokk budget bi daal di yéegal maanaam jàllale tali bi ci kaw ci kaw cimetière yi du dëgg donc loolu c'est extrêmement important fañ ko def aussi euh, yoonu ndox la yoonu ndox la foofu liggéey fa lu jafe-jafe jafe-jafe jafe la da nga gis sax benn expert ñëw na la fii cent franc moom moo koy defar alors que boo xoolee ba ci biir comme dafa nekk foo xam ne yoonu ndox la nappe phréatique bi dafa jege foofu trop dafa jege géej gi du dëgg. Hmm. xëy na la ngay def ci wàllu xaalis na bari trop mais malgré tout. mais xanaa defuñu ay études yu bala balaa ñuy dugg ci liggéey. si bien sûr études yu sérieuses yooyu moom moo wane li nga xam ne moom laay wax tout à l'heure hmm. maanaam li bi gars yi di naan chaque jour euh, pareegul ak ñàkk naa pareeg ainsi de suite mais tey jii nii tunnel bi pare na amul benn difficulté lu ne wax nañ ko fa ne waaye tunnel bi tey jii nii bokk na ci li nga xam ne dafa changé xar kanamu euh, Sénégal xëy na nag nit ñi mën nañu discuter maintenant sur la pertinence ou pas de mettre benn tunnel ou pas moi je pense qu'il est très pertinent de faire un tunnel comme tunnel de Soumbédioune parce que dana permettre ñu désengorger Dakar tuuti euh, li nga xam ne moom mooy surnos aussi tamit mu nekk beneen bunt bi gis ngeen biñ ko fi def ak APIX également c'était pour désengorger autoroute à péage ak yeneen yi nga xam ne def nañ ko fi tout cela euh, fexe ba Dakar vraiment nekk beneen visage tey jii nii tali yi ngay gis ñu nekk ci deux fois deux voies yëpp defe naa ni euh, ci nguuru Abdoulaye Wade dañ ko fi defee avant il y avait pas cela hmm? donc loolu modestement quand même mun nañ ko mun nañ ko accepter donc par conséquent yaakaar naa ni liggéey ANOCI nekkoon na liggéey bu am solo waxuma sax rayonnement bi nga xam ne moom la defal Sénégal maanam dayo bi nga xam ne gën na ko yokk Sénégal ci au niveau international ba nit ñi gën ko xam gën ko wekk mais da ngay xool suñu suñu espace hôtelier yi ni ñu ko ni ñu ko defaraatee lu ci mel ni méridien lu ci mel ni euh, hôtel yi nga xam ne ñoo nekk ci corniche bi ah donc ay ñoom euh, Radisson Blu ay Sea Plaza ak xeet googu nga xam ne dafa nekk yëpp nga xam ne tey jii ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon fii en deux mille giseen ñu foofu pratiquement dafa meloon ni dara nekk fa waaye lii tax na bu gën a Dakar gën a euh, def suñu dëkk benn ëpp touristique nit ñi gën a bëgg ñëw Sénégal mu nekk ay espace d'accueil yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, de dernière génération la méngoo na ak jamono et bokk na ci li nga xam ne ça a fait notre tey yi képp amoon kan da nga doon am fierté xëy na ne ko ah boo demee Radisson kat mën nga fa am dalwaay bu baax wala boo demee béréb sàngam di nga am dalwaay bu baax loolu euh, yaakaar naa ni valeur ajoutée la boo xam ne euh, lu ñu waroon saluer la aussi léegi ci mbirum annonce googu euh, gis nañu ne euh, retard bi ak itam xëy na jiixi jaaxa gi amoon na ci euh, yorinu koppar yi ko ñeel waraloon na ay député daje wax ni kon Karim wàdd mi warees na ko woo ci pencum ndaw réew ma déglu ko mu wax lu waral liggéey yéex a noppi ak itam xaalis bi fan la ko def ndax ñi ngi doon wax ne am na lu ci luubal woote googu ngeen jàppee ko complot ba tax ñu bari xëy na jaare ci di. xeex président Macky Sall mënees naa wax ne itam la ko jëlee ci PDS euh, foofa la jóge mbir mooma naka la demee woon Bachir. waaw loolu faatu je pense que c'est une véritable falsification de l'histoire xam nga lu tax moo wax ko moom mooy euh, musta am hmm. euh, comme ni ma ko waxee si sama njëriñ bi wax benn këru liggéeykaay boo xam ne dafay saytu hmm. li nga xam ne moom la ñu wax bonne gouvernance maanaam jubal ak leeral ci wàllu doxalinu askanu réew xar alalu réew mi aajowoo ci état bi bu jam baaraamu tuuma Karim Wade amul maanaam muy corps de cour de cour corps amul benn corps de boo xam ne jam nga baaraamu tuuma Karim Wade muy inspection générale d'état du commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion ak inspection général des finance ak lépp loo xam ne dafa jëm ci ay sentif ak maanaam lu jëm ci leeral ak jubal alalu askan bi amul kenn ku taxaw ba ci conseil de surveillance bi nga xam ne dafa am ñeneen ñoo xam dañu bokkoon sax ak Karim Wade te ñoom parti politique ay société civile lañ bokk ñooñu ñëpp dañu manku ne loolu lu jub la kon mbiru assemblée nationale boobu yaakaar naa ni dafa tombeek benn contexte bu particulier xam nga Uh, contexte bi mu tombé loon moom mooy contexte bi uh, lobby yi nga xam ne ñoo nekk au niveau international di fexeel Abdoulaye Wade pour jëm ko fi jëlee parce que Abdoulaye Wade dafa amoon ay positions yu courageuses au niveau de l'Afrique mais particulièrement pour l'économie du Sénégal mu jël ay positions yoo xam ne yu am solo la c'est-à-dire euh, fexe ba diversifier la coopération internationale nga xam ne li nga xam ne mooy coopération classique bi doxoon entre Sénégal ak France kese kese kese wala yenn réewu tugal yi loolu neewuñu dañ koy dagg waaye dañ koy wàññi Abdoulaye Wade xajal ñi nga xam ne ñoom ñooy les pays émergents ci suñu économie ci suñu coopération mu nekk loo xam ne am na ñu bëri ñu mu naqare woon ba daal di dem faw ci ñuy wax euh, Feed Agriculture Organisation euh, Fonds mondial pour l'alimentation mu dem foofu euh, wax position bi nga xam ne moom la africain yi am def ko avec beaucoup de courage gis ni européens yi wala occidentaux yi commencé woon nañu mere Abdoulaye Wade parce que gis ñu seen intérêt xëy na nekkatul woon ci Sénégal ndax dañu jàppoon ne Abdoulaye Wade ci ni nga xam noonu lay doxalee ci wàllu économie xëy na na mu waroon doolelee européens yi fii wala occidentaux yi xëy na lool dafay wàññeeku bu fekkee dafa tijjul waa Taïwan tijjul wa Chine tijjul waa Inde tijjul waa Malaisie tijjul waa Singapour maanaam dëkk yi nga xam ne Brésil coopération sud-sud bi loolu yëpp Abdoulaye daf ci xar tànk tubéem ba won occidentaux yi ne leen kat wax dëgg yàlla nawoon fa la nga xam ne moom moo amoon dafay won loolu moom moo indi c'est-à-dire que ay lobby économique d'abord ñoom ñoo complot ak ay lobby politique daal di sukkandiku ci ay nit ñoo xam ne wala ay organisation am dañu nekk Sénégal euh, tey gis ngeen affaire Lamine Diack bi dafa naa ne am na lu mu leeral lu bare bare bëri Lamine Diack nee nañ lu tax ñu jàpp ko moom mooy da doon jéem a fexeel Abdoulaye Wade euh, te xaalis boobu fi mu ko jëlee ci ay fonds occultes loo ko jëlee noonu la demee woon aussi tamit ci ay euh, côté politique bi ci côté organisation société civile bi et je pense que li ëpp solo sax tey jii mooy ñu bari dem nañ ba rëccu li nga xam ne moom la lan ñenn ñi doon def defloo parce que ñooñu intérêt Sénégal taxu leen woon jóg lobby yooyu ci noonu la ñu ñëwee la ñu jël Karim def ko comme un fonds de commerce parce que bu ñu gëmloo Sénégalais yi ne leen kii kat di Ablaye Wade dafa bëgg a jël doomam teg ko fii sénégalais yi danañu révolté wu contre Ablaye Wade c'était ça aujourd'hui c'était ça à l'époque euh, le, le, le modus operandi maanaam fexe ba diaboliser Ablaye Wade à travers une entreprise entreprise antidémocratique n'est-ce pas d'intronisation de son fils loolu moom mooy nekkoon li nga xam ne mooy seen cheval de bataille et loolu il fallait ñu jëm ko dëggal par divers canaux tey jii gis nañ ni ay jamono <laughs> Macky Sall mi dem na fi assemblée nationale bu France ñu koy décorer te ci contexte bi ñu koy décorer contexte bu particulier la dinañ am possibilité ñëw ci éventuellement du dëgg moom moo nekk tey jii président de la république lépp loo xam ne ñu ko doon def pour xeex Abdoulaye Wade ak Karim Wade tubaab yi ngi nekkoon ci ginnaaw ñi nga xam dañ seen intérêt dafañ ko menacé woon ci Sénégal bi rompre accord de défense wala ñu daal restaurer notre souveraineté économique dans certains secteurs loolu metti leen ba ñu sukkandiku ci ay doomu sénégalais yoo xam ne nguur ak pouvoir moom moo leen taxoon jóg loolu yëpp mi ngi kon donc euh, na ngeen jàpp ni li amoon jamono boobu contexte la politique la woon rek boo xam ne complot woon mais Karim Wade wala une lettre officielle ne ko ñëwul wuyu ANOCI ñëwul wuyu assemblée nationale amul leen lu muy nëbb koo xam ne <laughs> fa nga nekkoon muy inspection générale waa inspection générale d'État setal nañ la waa euh, inspection générale des finances amul leen lu ñu la incriminé corps de nekk ci état bi yëpp wax dëgg yàlla ñoŋal nañ li nga xam ne mu liggéey kooku dafa naa ne amoo benn inquiétude pour dem euh, ci assemblée nationale. kon lan moo tax demul lan moo posé woon problème forme bi. non est ce que sax mos naa ma convocation man mënu ma dugg ci débat boobu parce que jusqu' présent. ñi lay wax sax ñoom bu doon jox nañ ko une officielle et tout donc dañuy jàpp comme on dit la forme n'était pas ndax dañ ko convoqué wul. dañ a coow li ci rajo yi ak ci télé yi nga doon gis parce que ñoo xam ne seen intérêt la woon pour que ñu jéem a euh, crier à la victimisation que dama convoqué doomu abla Wade moom moo tax ñu ñu faagaagal maag yooyu ainsi de suite c'est faux c'est-à-dire que c'est c'est c'est vraiment euh, lu doy waar la loo xam ne tey jii buñ doon bindaat suñu histoire Sénégal dinañ ko leeral bu baax a baax mais malheureusement am na ci ñoo xam ne ñoom ut nguur jaraloon leen ñu wax loo xam ne. xam nañ ci foofu bëgg naa ñu taxaw parce que man. waxtaan naa ak benn député bon xaw ma ndax bëgg na ma tudd turam moo tax du ma ci yegg. mais mu ma Macky Sall en réalité woon dara parce que moom dafa nekkoon président assemblée ay député ñoom ñoo ci ndaje moo xam ni moom newu fa woon li ma lay wax. waaw noonu lañ ko présenté waaw ay député ñoo daje ñëw euh, daal di koy jox requête bi moom en tant que président de l'assemblée mënul woon def lu dul def li hmm. député yi bëgg parce que moom it député la avant tout te moom moo leen jiite. xam nga dossier boobu am na loo xam ne xam nga loolu je pense que. Euh, mooy mooy li ma la wax rek tout à je pense que dafa am ñoo xam ne benn moment dañu bëggoon créer benn crise politique sur la base euh, d'intérêt politique yoo xam ne ñoom ñoo ko motiver ñu dëgg mm. mais député yi amuñu woon benn difficulté a Karim Wade man combien de fois laa dem assemblée nationale ci ay commission technique bokk ak député yi amul woon benn député à l'assemblée nationale bu Karim Wade amul woon ay rapport direct ça je te tout de suite parce que bu ñu demee man man Karim rek laa doon gis mu nekk un boo xam ne bu demee assemblée nationale waa euh, du mooy astafurla euh, ministre boo xam ne bu demee assemblée nationale mais mm. député yëpp lay saafonteel ku ci nekk dafa lay wax ne carrément boo ma soxla jarul ki ñëwul parce que ñoo bokk liggéey bi lu dëgg mm. seen il a il avait des rapports très particuliers avec les députés bu ñëwee da ngay gis ne kii jëlul boppam acc sa kaw jëlul boppam defe ne teg ne moom mooy doomu président jëlul boppam euh, teg ko fu mu àggul man loolu mun naa ko seede parce que am na député yu bari yoo xam ne ñoo gënoon radical sax ah ci Karim Wade ñoo nekk en opposition comme je je prends le cas de El Hadj Diouf El Hadj Diouf musu ma ko gis mu am problème ak Karim Wade à l' assemblée nationale bu ñëwee dinañu daje dinañu saafante danañu waxtaan et tout donc pour dire que jamono boobu contexte politique la woon et puis li laloon fexe yooyu yëpp moom mooy fexe ba gàkkal deru Ablaye Wade. kon daal yow su ma la déggee. ni ñu ko waxee noonu demeewul noonu dañ koo makki rek waaye makkee nekk ci ginnaaw nga bëgg a wax. jamono boobu c' était un complot et aujourd'hui l'histoire a montré que c' tey li nga xam ne moom lay Karim Wade di am ci ay prouesse ci wàllu droit maanaam ci ay réussite ci wàllu droit euh, digganteem ak état du Sénégal wane na ni la ñu doon wax démb yooyu yëpp loolu amul yaakaar naa ni euh, am na sax ñoo xam ne dañu bokkoon ci complot yooyu génn nañ ci wala dem nañ ba rectifier ne ñoom bu ñu yëgoon bu ñu dugg ci complot yooyu donc je pense que loolu euh, sénégalais war nañ ci ibbi seen bët bu baax a baax a baax Abdoulaye Wade lañ fi bëggoon jëlee par des méthodes yoo xam ne non conventionnelles Euh, teg ko ci euh, ay caaxaan tek ko ci naka sudul noonu waaye tey gis nañ ñi Sénégalais bi ñu fi jëlee Abdoulaye Wade li fi nekk tey jii nii mais vraiment c'est la catastrophe c'est-à-dire que nekk na loo xam ne Sénégalais ci boppam ñun ñu regretté gis nga tey. Hmm. bu ñu waat son Sénégalais en mille 2011 2012 lañ doon def. ci wàllu complot sénégalais yu bari dañ koy regretter ça je vous le je peux vous le dire dégg ngeen keroog Barthélémy Diaz li mu wax euh, euh, comment s'appelle euh, Jean-Paul Diaz nee na bu fekkoonte ni dañu tokkoon ci contexte deux mille nangam ba muy jàppale ki fi nekk tey jii nii. Hmm. mu am information yi nga xam ne tey ji moom moo xew tey tey tey tey tey maanaam yàlla may ko xam-xam boobu kon du ko votel du dëgg. Hmm. foofu la sénégalais yi tol ñu bëri dañu bokkoon. maanaam dañu nekk. non bari na bari na waxuma ni ñëpp ñëpp ñëpp àlakul yàlla am na ñoo ànd ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk mais quand même l'écrasante majorité des sénégalais wax dëgg yàlla regretté nañ complot boobu nga xam ne tubaab bi ñoo ko doon complot ak Abdoulaye Wade et inconsciemment pour ñu bari sax dugg nañ ci taxamuñu ni ñoom ñi ngi servir intérêt tubaab yi je vous donne un exemple parfois daan nga dégg ñu ne woy société civile nee nañu nangam organisation des droits de l'homme yi naan nangam boo xoolee ba ci biir def ay analyse approfondie parce que man ci état la nekkoon da ngay xam ne kii dafay obéir à des enjeux géopolitiques dafa am ay lobby yoo xam ne ñi ñoo am intérêt tey jii pour instabilité amoon euh, ci Sénégal naam nag tout n'était pas rose maanaam du lépp moo baaxoon ci jamonoy Abdoulaye Wade mm-hmm. mais lu bari quand même na fi amoon na stabilité sociale amoon na yërmande ci askan bi wax dëgg yàlla gis nañu Sénégalais tey la ñu gën a sonn que jamono Abdoulaye Wade loolu nekk na loo xam ne aussi ñoom ñu koy regretter bu baax a baax. kon daal ñoom ñoo ñu dugaloon requête bi pour ñu déglu Karim ak. xëy na ay complot ay mbiru ay mbiru complot la parce que bu ah. jaaroon fu war a jaar. su mm. su jaaroon fu mu war a jaar Karim tout le monde la ko a dem wuyu su jaaroon fi mu war a jaar yaa un problème moi je pense que daal. waa léegi tontu ma Bachir. kon yow comme te gëmuloo ne ay député ñoo daje de manière indépendante. wax waxuma ni ay député. Ah. daje nañ wala daje wuñu. du ma dugg ci considération yi. parce que man lépp loo xam ne comme dama nekkoon ci gouvernement bi. Mhm. lu ma gisul lettre am officiellement ñu adressé ko du ma ko gëm. Mhm. man munu ma gëm ne ay député daje nañu parce que gisuma benn lettre buy mandargal waaw. kon munoo yow munoo gëm loolu. non amul ça n'existe pas officiellement nangul nañ la ka euh, ginnaaw euh, jafe-jafe boobu xëy na du ñu ci euh, xuus bu baax ndax du objet waxtaan bi tey dafa mel ni kon lu ñu tëj la teg ne bis dina ñëw. bés bi nag mm. mooy bi président Ablaye wadd jugee ci bopp nguur gi ci Sénégal. Mm. foofa ñu daal di lancer li ñu naan traque de bien mal en 2012 euh, track boobu daanaka Karim Wade moo nekkoon ci bopp bi euh, kañ ngeen yëg ne euh, nguur gi mi ngi ci ay tànki Karim Wade ak ay ñoñam bon man ma wax dëgg yàlla comme ni may jàppee adduna moom mooy man lu àdduna tërëti tërëti du ma tuumaal doomu aadama wala may fexel doomu aadama ci sama coobere bopp wala ci loo xam ne teguma ko ci dëgg parce que tuuma dafa rëy du dëgg balaa may jël position naan telle personne dañ ko war a déglu wala dañ ko war a entendre wala dañ ko war a accuser hmm? damay xool sama diggante ak yàlla xool li nga xam ne moom moo am man mun naa la seedal ni Karim Wade moom ci jëmmi boppam nit ku am courage la ba mu yëgee ne dañ ko pour pourtant nekkul woon Sénégal mun doon na def comme Pape Massata Diack mi nga xam ne jarul sax ma leen comparé parce que seen dossier yi c'est diamétralement opposé ñoom seen i posture bokkul eh, xëy na rek seen ka ci benn côté ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bañ a bokk parce que jamono bi ñu koy convoqué pour France moom Massata Diack mi ngi fii Sénégal bañ na dem Karim Wade bi ñu koy convoqué mi ngi nekk à l'extérieur dafa ñëw cela ne veut pas dire que damay comparer nag ñaari mbir yu comparable parce que waaw mais ñàkk dem geeg ñëw gi. ñëw bi rek laa comparer parce que Pape Massata Diack moom c'est pas une référence pour le Sénégal moom ak euh, vraiment kooku du référence franchement jarul sax may tudd parce que bàyyi sa baay ñu koy toroxal nii te papam ñoom ñaar ñoo àndoon ci complot bi ñuy comploter Ablaye Wade wax dëgg yàlla waroon na mun a dem nag euh, fekk ko foofu ci France dimbali ko parce que ci complot moo leen indil ñoom problème du dëgg loolu foofu rek maa ngi leen di ñaanal nag yàlla quand même loolu ñu jógee ci parce que ki kenn yéenewul kenn malgré les logiques d'adversité benn doomu Sénégal ñu koy toroxal tey ji tey ñaaw na trop foo munti dem ñu naan les noms de Diack hmm, donc son son le nom de Diack euh, rime avec la corruption le nom du Sénégal yooyu yëpp lu ñaaw la si ñun quoi maanaam lu ñu metti la mais quand même euh, il est il est un important de le relever moom la jël responsabilité moom it moom Pape Massata Diack am responsabilité am courage dem dimbali papaam foofu mu nekk noonu je pense que képp ku bëgg sa baay war nga def lool du dëgg hmm. nga baal ma rek ci parenthèse boobu léegi léegi euh, Karim daa nekk bitim réew ñu woo ko mu ñëw biñ ko wooyee moom dafa am courage ñëw dafa am courage u ñëw dafa am courage u ñëw xam na ni <laughs> jamono boobu alors ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk particulièrement le président Macky Sall xamoon nañu ci ay logique politique la nekkoon ñun ñëpp xam nañ ko xamoon na ci ay logique politique la nekkoon mm. li bugon bëggoon ay jamono moom mooy toroxal famille Abdoulaye Wade toroxal nguuru Abdoulaye Wade toroxal doomam loolu xamoon nañ ko mais malgré tout moom Karim dafa ñëw Sénégal parce que nee na lu àdduna métti métti métti il aura toujours la dignité dans l'épreuve gis nga loolu lu am solo la su gisee ñuy wax courage politique ça commence par cela fii leader yu bëri bu ñu nekkoon ci place su Karim Wade nekk foo xam ne ñi ngi am seen liggéey di liggéey au niveau international ak lii xew ci jamono yëpp gis nañ ko moo xew na Côte d'Ivoire xew na Togo xew na dëkk yi bëree bëri ñu convoqué la nga wut ay subterfuge ba bañ a ñëw si sa dëkk moom Karim Wade loolu yëpp fekk ko si dafa ñëw na qu'il pleut il neige dina ñëw Sénégal ñëw na Sénégal def na confiance du système gars dem nañu def procès condamné nañ ko ci naka sudul noonu mais malheureusement ba muy moom ba muy am confiance ci justice su Sénégal du justice bi nga xam ne moom moo fi jotoon a am muy CREI CREI ñëpp xam nañu c'est une loi scélérate boo xam ne tey jamono wane na ni wax dëgg yàlla mbiru caaxaan la woon boo xam ne Macky Sall daf ko réactiver woon pour lan pour faagaagal benn adversaire politique tey fépp fu ñu dem ci àdduna bi ñu daaneel leen ñoom CREI yi fépp fu ñu dem ci àdduna bi ñu daaneel leen parce que ñoom dañoo oyof maanaam ñu fenn foo xam ne dafa méngoog standard international du droit fii ci Sénégal déjà gis ngeen organisation de droits de l'homme yi fi nekk yëpp ak organisation société civile yi nga xam ne dañoo am sérieux bëgg seen réew ak kilifa diine yi nga xam ne dañuy sàmm seen digganteeg yàlla yëpp gis ngeen ni ñu ci yëkkatee seen kàddu du dëgg kon yaakaar naa ni leer na léegi ne Karim Wade dañ ko tooñoon dañ ko comploté woon euh, pour jéem ko neutraliser ci wàllu politique te loolu tey jii yàlla wane na ko bu ñu demee ba conseil des droits de l'homme nga xam ne mooy bànqaas bi gën a mag bi ëmb réew yi nekk ci àdduna yi ci wàllu yoon ne Karim Wade mii kat dañ ko tooñ ci naka sudul noonu nañ ko jugé baaxul la ko jugé tamit muy crédit baaxul yaakaar naa ni boobu état du Sénégal dafa waroon jël ay responsabilités am te lu gannaaw ci lépp loo xam ne jotoon na ko def ci mbiru. Hmm. loolu moo doon enseignement bi nga xam ne moom hmm. moom moo doon am d' accord Bachir euh, naka ngeen dundee emprisonnement wu Karim Wade ak moom personnellement nan la ko dundee euh, man ni ma dundee emprisonnement Karim Wade mooy je l'ai pris avec beaucoup de philosophie yaakaar naa ni tamit moom noonu la ko doon dundee parce que dem naa prison plusieurs fois fekk ko mu nekk nit bu dal bu am sérénité lu am solo la la paix intérieur Karim Wade ku ko amoon la mi ngi ay bouquin mi ngi ak ay livre mi ngi ay xasidam mi ngi jàng li mu war a jàng mi ngi recevoir nit ñi di kaf di ree di leen won ni moom <laughs> nekkul koo xam ne par exemple dafa jànnaxe dafa am sa sérénité imperturbable kenn mësul dëgg Karim Wade jooy prison kenn mësu ko dégg mu saalit kenn mësul dëgg Karim mu wone loo xam ne jëfu ku wooye di la ci ci prison dignité la am ci épreuve bi ba mu jeex takk takk takk takk takk loolu ñun mën nañ ko seede ñun ñi nga xam ne tamit ay xaritam lañu ay jegenaalam dañ ko doon jàppale aussi dañ ko jël avec beaucoup de philosophie parce que xamoon nañ ni euh, logique d'adversité politique rek moo ko lal te nañ ci àdduna lu dul dëgg rek du du yàgg du dëgg du yàgg te tey yàlla wane na ni lu dul dëgg du yàgg tey Karim Wade mi ngi ci liberté waaye tribunaux yi nga xam ne ñoo am crédibilité ci àdduna bi yëpp nee nañ ko ay ay yowin yow am dëgg dañ la doon tooñ dañ la doon complot dañ la doon faagaagal tey yow yaa am dëgg si ñoom loolu mooy li nga xam ne moom mooy am c'est vérité intangible lii nag yaakaar naa ne épisode la boo xam ne bu ci Sénégal jógee dana jàngat boppam bu baax a baax a baax a baax parce que amul solo vraiment ñu continuer di gàkkal deru Sénégal ci régression démocratique ci lan ay bëgg-bëggu politique bëgg naa faagaagal doomu aadama ci wàllu politique tey maa yor nguur danaa utiliser toutes les formes non conventionnelles pour faagaagal kooku yaakaar naa ni Sénégal war na dépasser foofu. war na dépasser foofu ci ku mu munti doon nag muy Karim Wade di Khalifa Sall di Barthélemy di keneen ak keneen Sénégal war nañu dépasser foo xam ne dañuy xeex doomu aadama bi si ay logique d'adversité politique. wala ci loo xam ne defu ko xam nga man dama d'accord li ñuy wax reddition des comptes reddition des comptes moom mooy su fekkee da nga gérer dara. loo xam ne dafa jëm ci wàllu réew mi bu ñu demee ba nga xam ne euh, jeexal nga euh, gestion bi wala sax en cours de gestion war nañ lay saytu de temps en temps du dëgg am na ay organes de contrôle yoo xam ne war nañ la saytu loolu dañ cee d'accord à cent pour cent la reddition des comptes est un sacerdoce pour nous les libéraux parce que dañuy entreprendre du dëgg waaye li nga xam ne moom moo xew ci dossier Karim Wade du dara lan lañ ko tuumal Karim Wade neewuñu ko yow da ngaa jël alalu réew mi nga xam ne dañ la ko votel bu doon budget ci sa ministère wala ci ANOCI luubal ko kenn waxu ko lool déedéet amul fenn foo xam ne <laughs> taxaw na ñu ne Karim Wade dafa détourné un franc du Sénégal amul ba ci arrêt CREI bi du dëgg bi nga xam ne moom kon dama condamné Karim Wade waxul ñoom li nga xam ne moom lañ koy tuumaal dañ ko ne enrichissement illicite maanaam dañu jàpp ni yow ni nga xam ne noonu ngay dundee dafa ëpp sa am-am li ngay am par ñu ne alalam. Euh, waaw ko natt euh, ci un milliard d'euros. <laughs> waaw très bien ñoom loolu la ñuy wax. Mm. ne que yow yaa moom aéroport bi yaa moom waxoon nañ ko sax moom moom aéroportu Malabo ah. Mm. danga soxoon dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm moom ndeysaan def ci ay élucubration rek <laughs> quatre mille milliards boobu ak euh, Latif Coulibaly ah ne am na quarante sept milliards yoo xam ne ci benn compte bu Singapour lii may wax ni yëpp. Mm. yoo xam nga faatu fu mu mujjee moom mooy tooñ baaxul daal ay complot woon yoo xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp vraiment tey ku leen koy fàttali sax dañuy am gàcce parce que xam na ni dañu nekkoon ci ay tappale dañu nekkoon ci loo xam ne du yoon bu baax et il est heureux aujourd'hui que yàlla restaurer vérité bi aéroport Malabo Karim Wade mosu ko moom leer na <laughs> aéroport Dakar bii nii nii di woon ne di gérer euh, Karim Wade moomu moom moomu ko leer na jet privé bañ doon wax <laughs> Karim Wade mosul am jet privé du dëgg hmm. 47 milliards yi ñu doon wax Singapour cela n'a jamais existé c'était du vent c'était du toc de la pure invention de ces contempteurs du dëgg kon ñun tey dañuy sant yàlla bu baax xam nga man fa laa doon amee gàcce tey hmm. su ma génnoon ci mbedd mi ñu ne ma ah yow de ki nga doon défendre ci rajo yi bu dégg bëccëg de ndekete la nga ko doon waxal yëpp wala la ko doon défendre yëpp lu dëgg ndax firnde yaa ngi nii mais tey damay romb ci mbedd yi nit romb ah non sa waaye xaritoo la rek wala mbiru politique la rek waaye tey yàlla yey na ñëpp ci dëgg du dëgg. Hmm. kon loolu moom moo jar a sant. maanaam lépp looy dugg rek nañu ko euh, relaxé ci euh, lu ñeel détournement de deniers publics ak corruption. waaye enrichissement illicite bi moom ba tey dañul te ci lañ ko condamné. aussi six xam xam nga xam nga hmm. xam nga Fatou caaxaan bi foofu la nekkee mooy li ma la wax tout ay loi wu enrichissement illicite li ñuy wax ay loi scélérate maanaam c'est des lois yoo xam ne dafa méngoowul ak jamono. du dëkk méngoowul ak jamono et puis euh, même bu dem sax dañu dem ba euh, teg ne loi boobu lu ñu war a jëmmal man su ma demoon tey ba d'accord ci loi boobu damay bëgg ñu teg ko ci ay ay ay ay ponk yu wóor maanaam booy tuumaal nit ki nga tuumaal ko tuumaal boo xam ne ku ko gis du jàpp gémmiñam mais affaire Karim Wade vraiment c'était c'était vraiment une honte pour la démocratie sénégalaise c'était honte une honte pour la justice de notre pays ça je parce que lu ñaaw la woon moom lañ doon bëgg a def ci ay lan ay considération politique wax dëgg yàlla euh, vraiment vraiment euh, condamnation Karim Wade boobu pour man amul benn sens amul benn sens li tax amul benn sens ñi nga xam ne war nañ ko teg yëpp dañ koo teggi nee naa la bu ñu demee ba groupe de travail des Nations Unies nga xam ne ñoom dañuy saytu en tout cas dëkk yi nga xam ne dañu nekk en convention avec les l'ONU yëpp dañu signé ñoom ay traité d'accord nañ Karim Wade dañ détention arbitraire lañ ko jàppee woon parce que li ñuy wax ay enrichissement illicite yi ñu fi tudd man ak yow ni ñoom yooyu cela n'existe pas lu dëgg kon yaakaar naa ni état du Sénégal occasion la am ci verdict yi nga xam ne ñu ngi koy jox Karim di dëggal position wu Karim wala euh, li nga xam ne Karim Wade mi ngi koy am ci ay ngañaay jëm ci wàllu yoon au niveau international warul nekk loo xam ne dafa war a ñëw nekk gàcce état wu Sénégal déedéet warul ñëw loo xam dafay nekk gàcce Macky Sall déedéet dafa war a nekk loo xam ne ñoom dañ ci war a jàngat parce que man mun naa comprendre ah ne par exemple ku ci mel ni Macky Sall dañ koo dugaloon ci ay erreur ku ci mel ni ay ñoom Mimi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ku ci nekk yaa ngi doon wax ci nopam du dëgg. Hmm. alors xam nañ ñi aussi am ñoo xam ne ñoom euh, gis Ablaye Wade ak gis euh, <laughs> ngeen baal ma ci kaddu yi dañu bañoon Ablaye Wade donc ñooñu ñëpp bu ñu wëree tamit Macky Sall di wax xëy na moom tamit mën na am dama yaakaar rek am ah, dama yaakaar xëy na te moom dafa dem ba benn moment ñu wàññaar loxoom xëy na loolu mën a nekk li ma jàpp tey moom mooy l' expérience elle n'est rien de ce qu'on ngeen doon wax que ni bon liñ ko dàq PDS ak yooyu noonu moom lay. fay waaw mais loolu loolu loolu loolu loolu ay mbiru fayantoo munu fa am xam tax munu fa am. moom moo jëlal responsabilité boppam moom Macky Sall génn parti démocratique sénégalais parce que fii li fi am. lenn ginnaaw biñ ko bundaxataalee nag Bachir. xam nga fii yàgg nañu bundaxataal nit mu am choix. Ah. génn wala mu toog kooku choix kooku choix la ça n'a rien à voir et puis. Ah, xam nga tam am na ñoo xam ne lu ñu leen teg ñu tegoo ko mais am na ñoo xam ne itam boo yeggeek ñoom fenn fi nag dañuy jàpp ne xëy na daanaka. waaw euh, fi bàyyi seen bopp wala. non non non moom moom moom moom moo la gën a xam ne lépp lu mu am. demul élection ñu fal ko ko c'est parce que il a eu la bénédiction de Abdoulaye Wade et du Parti démocratique sénégalais moom moo tax mu am ko cela n'existe pas non mais mais attends maire Fatick ba mu nekk maire Fatick ba mu nekk hmm. suñu jëloon ki nga xam ne moom mooy secrétaire général UGTEL maanaam ndaw ñi hmm. teg ko foofu ne mooy candidat wu PDS jamono yu muy nekk maire foofu mu nekk maire xam nga tax hmm. parce que loolu ñoom ñëpp ñi ngi doon jëfandikoo li ñuy wax oraawu Ablaye Wade c'est-à-dire que oraawu régime bi moom lañ doon uti ci ba kese amul leneen du dëgg mhm. kon mais ci wàllu ndomba tànk tey ni Ablaye Wade jëlee Macky Sall euh, façon responsabilité bu ci nekk ñëpp di ko lim mais <laughs> wax dëgg yàlla defal na ko ay yeneen doomu jàmbur yu bëree bëri bëri Abdoulaye Wade du xool sama doom ak doomu jàmbur doomu Sénégal lay xool ni mu mun a nommé Karim Wade noonu la mun a nommé Macky Sall noonu la mun a nommé Cheikh Tidiane Gadio noonu la mun a e keneen ak keneen ak keneen du dëgg loolu c' est extrêmement important et je pense léegi compétence la ñuy gën euh, yeneen ni ko mm. bi xeex bi taree ñu ne Abdoulaye daal fi mu ne jéego yi muy teg firndeel na ni lu dul doomam ñoru ko euh, Karim bi mu nekkee ci kaso bi. waaw loolu ay ay xalaat euh, moom aussi stratégie de lutte mën nañ leen ko nangul pour gën a yokk pression bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xew na ci PDS googu énergie deuxième daanaka gi mu jotoon a dese yëpp ci xeexu Karim Wade la la def mën nga ñëwaat rek ñun un peu juste ni ngeen mënee combat bi pour la libération de Karim Wade. waaw c'est vrai que li nga ne énergie am yëpp ci libération Karim Wade la ko def c'est vrai PDS euh, am na lu bari loo xam ne euh, def na ko ci xeex. li nga xam ne moom mooy détention ci arbitraire u te loolu vraiment c'est l'occasion de féliciter les militants et les militants ku ci nekk rek xar nga ci si tànk tubéy responsable foo munti nekk ci adduna bi yëngatu nga def nga sa alal def nga sa doole def nga sa kàttan def nga sa mën-mën pour que Karim Wade génn ci prison bi waaye du Karim kese mais kilifa diine yi mobilisation bi amoon ci procès Karim c'est extraordinaire ñi nga xam ne dañu nekkoon société civile ndem si yàlla ay ñoom Aboubacry Mbodj ba ci ñoom Seydi Gassama ñoom Alintine ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñoom gàcce ngalama la société civile taxaw nañu du dëgg nga xool yéen journalistes yi bari na ci ñoo xam ne tey si seen chronique seen akalaay taala wax nañu jël nañu ay position ferme parce que lii au delà de la personne de Karim Wade lu doon gàcceel euh, lu ñaaw la woon pour Sénégal ay règlement de compte yoo xam ne de c'était tellement flagrant que ñenn ñu bari bëgguñu woon Sénégal di am image boobu au niveau international te tey yàlla jox na leen raison kon yaakaar naa ni euh, def nañu énergie ñun en tant que PDS waaye yëguñu woon coono boobu parce que on sentait également euh, beaucoup de force concurrentes du pays yoo xam ne ñëw nañ suñu suñu suñu combat hmm? donc le PDS a été toujours un parti combatif ku xam histoire PDS xam ne Euh, du arrestation Karim Wade moom moo koy émouvoir parce que avant arrestation Karim Wade il s'est passé énormément de choses le PDS a toujours vu ses responsables au plus haut sommet être victime euh, de complot du régime en place jamonoy Abdou Diouf gis nañ ko gis nañ ko ci jamono Senghor daa ngi dégg euh, te gis nañ position yi nga xam ne moom la ci doon PDS doon am mu position de combativité xeex jaarale ko ci wàllu yoon jaarale ko ci wàllu mobilisation sociale ak politique ak ay plaidoyer au niveau des organismes internationaux garantissant les droits humains euh, loolu moom mooy taxawaay bi nga xam ne PDS moom la mus am non seulement pour ses responsables mais pour képp koo xam ne tu es victime d'une injustice te yeewoo ci état wu ci ci ci dëkku hmm. boogu itam euh, Karim euh, xëy na andil na ko joote ci benn euh, jamono ndax am na ñenn dem nañu ba ci biir ne ñoom daal Abdoulaye Wade mi dañu gis ne dafa bëgg a jël doomam def ko ci seen kaw damay dellusiwaat ci la nga doon wax sànq ñu ne ba ñuy xeex di sonnal pedes di tëdd ci kaso yi ñu leen di dóor booba Karim ma nga France di jàng wala ma nga woon ca yeneen kon tey du ñu nangu lépp sotti ñu bëgg a jël kooku teg ko ci seen kaw kon ci benn wàll xëy na Karim Wade doon na loraange ci ci PDS ndax nangu nga loolu. bon d'abord euh, ñu euh, rétablir encore euh, vérité historique parce que euh, il ne faudrait pas que ñuy falsifier histoire bi ndaxte dañu bëgg a défendre suñuy position je veux parler des autres yi nga xam ne dañu tàmm di wax ni ay Karim Wade ba mu nekkee France ba mu nekkee fii ñoo doon liggéey non gis nga loolu c'est faux c'est faux c'est un argument trop léger argument bu léger la ndax ñoom ñoo la gën a xam ne eh, Karim Wade biir PDS la juddoo papa moom mooy secrétaire général national Me Abdoulaye Wade amul lenn loo xam ne def na ko ci wàllu politique lu dul jàppale parti démocratique sénégalais son engagement était constant son engagement était constant aux côtés de son père aux côtés de sa famille aux côtés des militantes et militants. waaye du ñàkk gis yi am nañu ko jëkk ci xeex bi Bachir. gën ko mu yëla may comme ni ñu koy waxee nag ñoo bañ dem seen yoon. et man muyoo la mayo muyoo la mayoo dama bëggoon ñu am ay critères yoo xam ne dañuy mën a euh, déterminer kan moom muyoo la mayoo ou pas yaakaar naa ne tey ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp euh, di wax euh, mbiru héritage parce que en fait il s'agit d'un héritage héritage boo xam ne du Abdoulaye Wade moo koy joxe de déedéet c'est le parti démocratique sénégalais moo koy joxe bu leen fàtte ni Karim Wade bi koy choisir def ko candidat mais dañu convoqué congrès congrès boo xam ne fédération yi nekk ci quarante cinq département yëpp kenn ku ci nekk da nga yónnee sa délégation hmm. bi nga ñëwee nga am euh, souveraineté votel ki la neex y avait des candidats jamono boobu y avait trois candidats Karim Wade ñu choisir ko comme candidat dëgg hmm. xëy na am na ñeneen ñoo xam ne bi loolu ñu doon défendre sax candidature Karim benn moment jarul mooy tudd seen tur dem nañ ba benn moment ñoom jàpp ni am na benn équipe bu nga xam ne Ablaye def ko mettre en place mooy secrétariat national secrétariat national bi maanaam mooy gouvernement wu PDS rek moom mooy organe ah. exécutif bi moom mooy xeexal moom moo nekk ci kanam mooy bopp PDS bi hmm. du dëgg hmm. ñenn ñi ñu boole leen ci biir ñenn ñi ñu ñàkk leen boole ci biir jël ay ndaw aussi tamit boole ci biir jël ay mag yoo xam ne bokku ñoon boole leen ci biir kon mbir mi du ay caaga ni ñii dañoo jege Karim Wade moom moo tax ñu boole leen ci wala ñii dañoo contre Abla Karim Wade moom moo tax ñu génn leen ci ñi nga xam ne tey jii moom ñoom laa lay limal nii ñoom dañoo taxaw ne woy affaire bi dañ ko bëgg a jox euh, Karim Wade ñooñu woon ci biir secrétariat national bi dañu am yeneen raison yoo xam ne ñun maîtriser wuñ ko c'est des raisons inavouées moom moo tax ñu jël ay position daal di daal di nekk ay frondeur mais loolu ak démocratie ñoo ànd maanaam nekk na loo xam ne ñun tamit dañ koy intégrer hmm. dañu jàpp ni lu normal la si dund si dundinu organisation parce que mm-hmm. tamit munoo fexe nag bu ñëpp ne Euh, vraiment gongo déedéet. Mm. il faudrait que ñii d'accord ci lii mm, ñu ni bañ heureusement nag. voilà heureusement nag mais même bi nekkee ci nguur gi sax am na benn. noonu la ay ay ay grogne yu ñu doon dégg. c'est normal c'est tout à fait gis nga nag gis nga Fatou. la ñuy jël ay nitu Karim Wade tàmbali leen fal. Fatou man dama bëgg contradiction mm. man dama bëgg maanaam euh, dama bëgg maanaam contradiction dafa baax. ñëpp waruñu xoolandoo. mënuñu xoolandoo ci même même yoon déedéet moom kay ku ci nekk fi ngay xool. na nga am possibilité argumenté ko ak ay argument yu leer nga xam ne ëllëg boo waxee kenn xeex bu ñu jàpp ne sa bopp la tax a jóg waaye ay principe moom moo tax ngay xeex du dëgg mm-hmm. man bu ma la gisee ngay dégager ay principes ne par exemple il y a des divergences d'approche au niveau du fonctionnement critiquer le fonctionnement du parti sur la base de l'approche loolu mun naa dégg nit ki mais su ma déggee nit di kaas parce que intérêt boppam la jiital loolu du mën a mën a dégg du parce que parti association la boo xam ne ay nit ñu bari ñoo ko bokk du benn nit moo ko moom kenn donnu ko du Karim Wade moo ko donn du keneen moo ko donn du Bara Gaye du man du keneen du dëgg ñun ñëpp dañu bokk rek parce que dañu bokk ay gëm-gëm dañu bokk ay idéo ngir lan fexe ba jaar ci wàllu politique defar suñu réew loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ñu tax a jóg mu nekk une association boo xam ne li ñuy teg d'abord mooy intérêt Sénégal même li ngay def ci parti bi yow bu fekkee da ngay def une équipe sóoral ni lii kat maa ngi koy def mais dafay impacter directement ci njëriñu réew mi parce que su ma jëloon tey jii jël n'importe qui dugal ko ci sama ci sama secrétariat national wala ci sama bureau euh, politique bu fekkente ne ñooñu gëmuñu intérêt Sénégal mais duñu mën a liggéeyal Sénégal ëllëg bu ñu jëlee nguur gi c'est un problème hmm. kon maître Abdoulaye Wade mooy ki nga xam ne yàlla may na ko expérience ci wàllu politique ak ci wàllu gouvernement xam nañu ñun ñëpp nag ku ci nekk xam nañu moom moo jël souverainement la décision de réorganiser le secrétariat national ñii nga xam ne ñenn ñi ñu ngi kaas am nañu droit kaas parce que débat boobu sax dama noon dootuma ci wax parce que c'est dépassé franchement c'est dépassé ñun nekk nañ ci leneen quoi période bi ñu ngi xëy na. Ah, waaw ñëw ci démb na waaye du ñu tee fàttaliku. waaw xëy na commune Covid 19 bi Covid 19 bi moom moo tax rek mais ñun fi ñu tolloon moom mooy période de déploiement ñu ngi nekon ci benn phase bu significative mm-hmm. muy mbiru opération de placement et de vente des cartes nga xam ne euh, c'était pour euh, réorganiser no structures à la base parce que euh, désormais la dévolution des responsabilités politiques euh, ne se fait plus euh, via euh, directement un pilotage wala loolu nit ñi nga xam ne ñoom ngay yeewoondool ñoom ñoo lay tànn ne ah diw kat mu nekk luñ ci gox sang gox sangam donc carte yi moo doon li nga xam ne buñ ko jaayee kenn ku ci nekk di nga xam sa dayoo nu mu toll fa nga dëkk su ko defee nit ñi ñoom ñooy choisir en fonction de ki ëpp li mu jaay carte loolu moom mooy euh, réorganisation du parti bi nga xam ne PDS ci loolu la bëggoon a engagé wu avant même euh, xew-xewu jamono yi yëpp di di am hmm. ña nga xam ne tamit euh, jël nañ seen i position ñoom aussi nangul nañ leen ko hmm? la comme dini ko mooy leen dini amuñu difficulté boobu l' essentiel daal le PDS reste constant tey jii ñu ne am nañu fierté gis ne PDS bëri na ay cadre sénégalais yoo xam ne mosuñu def politique mosuñu def politique ñëw na ñu adhéré parti démocratique sénégalais ay ndaw yoo xam ne mosuñu def politique ñëw nañu adhéré ay nit ñoo xam ne dañu nekkoon ci yeneen partie ñëw nañu adhérer parti démocratique sénégalais. Mm. tey beaucoup plus attrayant et beaucoup plus attractif kooku moom mun ko wax tout de suite balaa ngeen ko doon xam nag ngeen fekkee réunion wu jeunes yi par exemple wala ngeen fekke réunion wu famille wala ngeen fekkee réunion comité directeur wala secrétariat national di ngeen gis ni fii am na ci ñu bari ñoo xam ne ñëw ñu mais vraiment c'est pas des politiciens endurcis ñenn ñi li leen indi bokk na ci affaire Karim parce que bëri na ay Euh, mbiru Karim Wade moom moo leen dugal ci politique ma wax la ko tey. ah oui ah na ci ay sénégalais yoo xam ne ba ñu juddoo ba ni ñu nekkee mag jàppale Karim Wade moom moo leen dugal ci politique parce que dañu gisoon injustice bi Karim Wade doon dund ñu taxaw ci wetam parce que y a des qui sont réfractaires naturellement à l'injustice man noonu la mel man mi bi wax ak yow mhm. bu fekkonte ne du woon Karim Wade sax position bi Karim Wade nekkoon bu ko sénégalais bu Macky Sall nga xam ne tey jii adversaire la tey suñ ko doon suñ ko doon jéem a toroxal comme ni ñu toroxal toroxalee wuñ bëggoon toroxal Karim Wade ma taxaw jàppale ko moom parce que man principe bi laay xool. du dëgg te bëri na ay jeunes yoo xam ne ay. mag ñoo xam ne ci loolu la ñu nekkoon donc vraiment le PDS a engrangé beaucoup de beaucoup de d' accord kon euh, affaire Karim Wade bi am na njariñ ci benn côté ci PDS leneen euh, euh, Bachir di coow lu toppoon Karim aussi mooy que ni bu weesoo PDS xëy na lu ko jiitu. papam président Abdoulaye Wade bëggoon na ko teg ci boppu Sénégal yaa ngi koy junj sànq ticket présidentiel bi looloo ko euh, sababoon ñu ne loolu itam moo sababoon manifestation juin ñu ko doon fàttaliku sax dimanche bi ñu weesu lépp jëm ci juin bi nga xam ne moom la ñu euh, euh, coow loolu Bachir nu ngeen ko dundee. waaw d'abord mooy li wax ci njëlbeen wax bi rek le complot le complot d'origine. voilà il y a eu un grand complot boo xam ne dafa nekkoon en branle complot boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko doon def ce sont des lobbies ay lobby yoo xam ne seen intérêt dañ ko menacé ci Sénégal et yaakaar naa ni tey euh, ñi nga ne sax ñoo sumboon 23 juin ci affaire u ticket présidentiel bi xam nañ ni ñu ci bari dañ leen a nax donte ne euh, amoon na ticket présidentiel mais quand nit kuy xalaat tuuti rek xam nga ni mais loolu mënta nekk c'est-à-dire que mënoo ñëw ki nga xam ne c'est un ministre nga ni non bu ñu defee ticket présidentiel moom mun na nekk président de la république. ah Bachir Ka président Wade nag mënoon na ko fal diggante bi vice président. Euh, waaw daal di fiy jógee rek teg ko teg ko ci ci ci ginnaawam nag loolu nag Bachir nag lu mun a nekk la. Mm, nangul ko nag ñi doon xeex parce que nag. génn ci mbedd mi ak mouvement bu rëy boobu. li yëkkati Sénégalais yëpp aussi non moi moi moi yoon na ci ticket boobu. moi je pense que xel li muy gën a nangu sax moom mooy quart bloquant bi nga xam ne moom la Abdoulaye Wade institué woon nga ne koy xeex. Mm. parce que loolu mën nañ ko nangu parce que dëgg rek moo yàlla. Mm. mais wax dëgg yàlla ak configuration bi amoon ay jamono. Mm. ñi doon wax ne ay Abdoulaye Wade def bëggoon teg doomam yëpp mooy ñi nga xam ne inconsciemment ou consciemment. dañu bokkoon ci. complot wu lobby yi nga xam ne jàpp nañ ni pour daaneel Ablaye Wade moom moo fexe ba gëm gëmloo askanu Sénégal yi nga xam ne yenn yi bëgg ko ne leen kii doomam la bëgg a teg fii man loolu gëm mooy sama conviction te fu ñu mënti dem dinaa ko démontrer waaw fu ñu dem dinaa ko démontrer au passage Abdourahmane Sow bu COS M23 moom laa ci dalaloon dimanche bi ñu wees waxtu bi moo ñu tàmbalee dab Bachir hmm. léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne moo lay taayal waxtaan wi euh, sànq ne nga Karim dund na emprisonnement am ak dignité mosu tokki waaye euh, dégg nañu ñeneen ñi aussi Karim bëggoon na génn euh, ikitam benn moment sonnoon na lool ci kaso bi supporteetul woon nekk <laughs> foofu et tout donc bon loolu dafay di li nga wax sànq lu mu ci mën a doon itam euh, ku ci nekk am nga sañ-sañu wax dinaa leeral dinaa leeral waaw dinaa leeral tuuti kay mm. euh, musul wane ay fiñ signe de faiblesse ci ci ci euh, prison bi mm. ma lay jox benn firnde bu ndaw a ndaw mm-hmm. xam nga Karim Wade ni ko génne ci prison bi ñëpp xam nañ ni dañ ko preuve preuve dañ ko patam patamee parce que Karim Wade était devenu une patate chaude ci loxo Macky maanaam dafa nekkoon régime de politique bu dérangeant. Hmm. bu encombrant régime bi nga am pression sociale am pression politique am pression religieuse am pression au niveau international <laughs> jàpp naa ni lu métti la woon ci doon jàpp pour Karim wa donc c'est clairement clairement clairement journaliste yi beaucoup de gens alors donc il fallait le libérer mais ci yenn condition lañ ko libérer ci condition maanaam xët-xët xët-xët par force di nga génn par force di ngay génn hmm. fu ñu defaree passeport am ci prison bi fu ñu defaree nangam lépp taxaw résister moo jox la information bi dafa taxaw résister ne du gën hmm. a ci leneen ah ah, de nañ ko waaye xel xawoon na cee tey non non déedéet mun nga mun nga ko jàpp moom mosul demandé Karim hmm. Wade mosul demande grâce xam nga ki sonn mooy demandé grâce dañu waxante dëgg te pourtant il avait la possibilité mësu ko demander nee naa la de tous les hommes politiques du Sénégal mhm. ñëpp war nañu jàngat ci Karim Wade ci wàllu endurance maanaam ci wàllu muñ ak résilience biir prison na ma fa mel yaakaar naa ne exemple la man de euh, am naa fierté tey dina ma ki nga doon jàppale nekk na koo xam ne sul saalit prison parce que loolu am solo la lu àdduna métti métti métti métti nañu xool suñu maam yi nañu xool si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ba ñuy dund épreuve yenn épreuve yi dañ ko ànd ak ak dignité ci maam man ne maam borom Tuubaa exemple la ci en durance maanaam dékku ay nat yoo xam ne suñu borom da ko koo teg du dëgg ñun nag xaajaguñu egg sax ci réewu Serigne Touba du dëgg. waaye dinañuy jéem a jéem ba topp ñoom seen i tànk du loolu mooy li nga xam ne moom la Karim Wade def euh, vraiment nga ma ci sama question bi euh, wala ma lay laaj sax nga ñëw wax ma li la neex mais d'accord mais hmm. Bachir sénégalais yi li leen jaaxal euh, ci mbiru Karim Wade mooy ni yëf yi demee comme film guddi gi toog nañu kenn mënatul connecté wu subitement kenn mënatul woote téléphone. loolu lépp daal karaj Ah, ñoom ñoo ko def kenn xamatul xew blackout total ñoom ñoo ko def bëgg ko ko exilé tey waa yóbbu nañ ko bitim réew génn na ci kaso bi voilà jeex na yéen nag waa PDS aussi ngeen dugg ci pataaral goo xam ne kenn comprendre ko ngeen ne yéen yëgu lu xew xamu leen ci dara voilà quoi. loolu loolu aussi am ci kenn xamul lu xew non musuñu wax loolu mm. musuñu wax loolu ñun dañ leen mos a wax ni Karim Wade dañ koy exilé de force loolu duñ ci jóg loolu moo am dañ koy exilé de force moom en exil lañ ko yóbbu vrai ou faux hmm. loolu lañ mus a défendre ñu koy défendre lu ñu leer. nu yëf demee est-ce que. yëg ngeen non dugg ci considération yëguñu waaw man loolu laay wax loolu laay wax. ça un peu complexe mais euh, na nga jàpp ne rek dañ ko dañ ko exilé. Hmm. xam nga exil moom dafa dafa gàddaay daal. Hmm. dañ ko voilà dañ ko exilé dañ ko gàddaay maanaam génne ko ci loo xam ne nekkul ci war a boppam. du loolu defe naa ni ëmb na lépp. d'accord léegi euh, Karim Wade Bachir taxawaloon na fi génération du concret loolu fu mu nekk léegi. génération du concret concept la woon boo xam ne bu doon jàppale ci gouvernement Abdoulaye Wade bu doon jàppale parti démocratique sénégalais benn excroissance su PDS la woon boo xam ne xëy na ñi ci doon bokk en général bu responsable politique yi mais ay jeunes ah ay jeunes ay euh, ñoo xam ne mosuñu def sax politique en général ñoom ñoo bokk ci génération du concret bi nguur gi daanoo aussi am na ñenn ñoo xam ne. ñi ngeeg ñun léegi bari nañu ñi ngi nekk di liggéey ak euh, euh, parti démocratique sénégalais wala di bokk ci mouvement karimiste yi am na ñeneen ñoo xam ne aussi tamit jël nañu beneen yoon du dëkk. Hmm. te loolu moom mooy àdduna mais génération du concret euh, pour rétablir les nekkul woon loo ne c'était pour venir jeter li waral ma laaj la loolu mooy PDS mi ngi euh, Karim Wade pour moi mi ngi euh, Qatar boobu ba léegi wax nañ fi ne day ñëw yoon yu bari ñëwul waxtu bi moo ñu mayul ñu dugg ci yooyu. Euh, dama bëggoon xam juste bon nee ngeen dina ñëw tôt ou tard. incha allah dina ñëw parce que am na ay yéene ci Sénégal yoo xam ne bëgg na ko doxal. dafa am sax ay responsabilités yu muy incarné ak yu muy gérer ci parti bi. kon mun nañu ne Karim Wade mbébétam ngir nekk président ba tey. incha allahu loolu moom nekk na ambition boo xam ne ñun ci loolu la ñu liggéey bu dégg ba ci. d' accord kon appareil politique PDS ngeen di utiliser gannaaw génération du concret mi ngi suñu ginnaaw. mais Karim Wade a été le candidat du parti démocratique sénégalais rien n'a entre temps. leer na. <laughs> Bachir Diawara maa ngi lay gërëm amoon naa mbégte lool sëkk ak yow waxtaan wi doon fàttaliku euh, surtout libération wu Karim Wade bon yeneen euh, sujet yi daanaka euh, moo gën a jël waxtu bi waaye wax nga ñu ci aussi loo xam ne xëy na dina am lu mu leeral ci bopp ñenn ñi muy libération bi amoon guddik 23 jàpp 24 juin ñu dëgmal 24 juin kon fii ak fan yu néew doon ñëw ci pàttaliku gi ni ñu ko defee ci mouvement bi nga xam ne mooy M23 doon itam yëngatu 23 juin 2011 dimanche bi weesu donc Bachir lépp jëmoon si euh, fàttaliku ñu lay gërëm en di la sant euh, bu baax a baax ci waxtaan bi ak disponibilité bi surtout jërëjëf Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeurs yëpp encore di leen gërëm bu baax ci invitation bi également di aussi seen professionnalisme et à bientôt incha allah. incha allah jërëjëf Bachir Diawara kon mbokk yi mu nekkoon seen émission démb ak tey ak Bachir Diawara nekkoon chef de cabinet bu Karim Wade Fatou Thiam nga moo ne woon ci kàddu gi feggoog Diaw jàlloo ci machine bi ñu ngi leen di euh, dig dajee beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm.